amdi wa sukri liman kulli bi saa lawridan doona suutin inda sarsaara law sanaa iwarid waanil bila siqaatin مسقاد لي من بني ديمان أنساره لله كل للدى أبر ما كرمات من أرتلنا وفي أجم من سارا إن الذين إليه سردار خير قساد سيارة الفارخ دائرين أو شارا إن الذين إلى سردار خير قساد baax a baax a baax kilifa bu mag yi Cheikh Abou mi nga xam ne moo leen yabal ngeen teewal ko fii ànd ak mboolem njaboot Sëñ Fàllu gi soxna Kunta seen mag ju baax ji ak mboolem ñi ngeen àndal ci ay doom waaw euh, te loolu doon doon honneur bu mag ci nun daal ñu ciy sant bu baax di ñaan seen euh, fay fay leen ci jéego yi nga xam ne dox ngeen ko te lislaam rek tax waaw nga xam ne daal ñi ngi seen ginnaaw rek waaw ñu ànd rek moom wane ko rek waaw Mbàkke waaw yoon moom genn kàddu la fii ne yaa ko yor jërëjëf. di siyaare sëñ bi. di sant sam euh, euh, jàmbari lislaam di Cheikh Mouhamadou Mourtada. ak ndax sëñ bi léegi mu ngi may fàttali ne exposition bi nga gis ko daayiratul ansaari diin ñoo ko def te ci ndigalam la woon waaye noonu mu lu am bitim réew rek war nañ koo sant sëñ Mourtada ndax moom la ko sëñ Tuubaa cërale woon ba mu egsi fii tey ak li li li nga xam ne xew na ci àdduna bépp muy wane sëriñ bi ak lu yëkkati sëriñ bi ak lu yëkkati lislaam ak luy jëmmal Cheikh Ahmadul Khadim mhm. kon moom itam yàlla nu ko yàlla fayal te taas ñu ñi nga xam ne li ñu yor du dara sax àdduna rek la dañ koy ŋaf-ŋafee maanaam néeg néeguñu koo bàyyi mu dem mhm. kon nun ñi nga xam ne nag li ñu yor teeg ëllëg la mu sëriñ bi loola bu ñu ko dee denc ak di ko sàmm noo ci gën a yee ñëpp te itam euh, sëriñ bi moom day barkeelu ci lu yonent bi am te yonent bi defal nañ ko ko ci turki gis naa fii léegi ay photo yoo xam ne sax foofu la jóge muy ay athar ak jeexit yoo xam ne ci yonent bi ci boppam la bàyyi ko ñu denc ko di ko barkeeloo loola kon Sëriñ Tuubaa war na ko am liin fi fekk itam muy ay barkeelu li tax nu fekk ko fi mag ñu nu jiitu woon ñoo ko sàmm ak ci kon nag li wolof di wax mu jëpp si mu réer wóor ñu ko def kon li fi des ci barkeelu war nañ koo mën a sàmm ngir njariñul neen la waaye du yem ci barkeelu yi rek sax waaye lépp lu laal Sëriñ Tuubaa des ko war a feeñal ku liggéeyal Sëñ Tuubaa dañ laa war a wane loolee nag daa mata wutal barab boo xam ne loolu dong nga koy tax a jóg xam ngeen ne daaray kaamil bi mu noppee fii ci Touba Saint Blaat la mu amoon ci barke lépp def na ko fa ma nga fa ba tey lu ci bari bokk loolu nag man li ma jàpp mooy ab junj la woon mooy da doon joxañ ne fii fu mat a la kon war nañ ko wutal kërug boppam bi xalaat bi ñëwee itam ñu wax ko Sëñ Muntaxa mu rafet la ko ba joxe tur kon loola ci lañ nekk kon it du du du mën a ñàkk bu ñëwee toog fii barab bi a tax koo jóg faw ñu sàdd ay sànni ci kàddu jëmale ko foofu xamal ko bokki taali bi fi teew te yëguñu ko woon. xam ne loolu ci lañ ne di ñaan nag daje ci ak ngërëmul sëriñ bi ak ndimbalam te ànd ko génn yëpp. yàlla ko fekkee te tal ko te ci ngërëmul sëñ Tuubaa. sëñ maa ngi jégalu ci guddi gi waaw. naa kon ñu la kàddu bi incha allah bisimilah jërëjëf. sëriñ bi nee na mi ngi fàttali ni suba. la ñuy war a dem Sarsara waaw nee na bu nu dellusee ci le 3 samedi la def cérémonie de culture collective bi ca palais des nee na 17h na fa fekk ñépp ndax dëkk bi fan yi dafa xaw am yëngu-yëngu kon nag 5h na fa ñépp ñëw jullee si fa tàkkusaan ñu mën a teel a àggale liggéey bi insha allahu rabbi yàlla nañ ko yàgg a teewe barke xadiimal Mustafa sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa gànnaaraay